ce que je considère, parce que j'étais là, oui, moi c'est que le président Ousmane Sonko a été victime de tout ce qui s'est passé oui. entre 2021 et 2024. Ce que je considère, c'est que le président, reste, le président de la République est le responsable de tout ce qui s'est passé entre 2021 et 2024. C'est ça, ma considération. On est d'accord là-dessus. Alors, donc pour dire, de ce point de vue, il ne faut pas, à partir d'une situation ngay balancer des choses yi nga xam ni ça n'a rien à voir wax nga ko léegi dans l'organisation de l'élection dans votre départ dans moins de 40 jours que vient faire une loi d'amnistie gis nga je fais partie des opposants qui s'assument et qui restent extrêmement constants sur des questions de principe et de conviction Ce que j'avais dit hier sur la loi d'amnistie, bien que brandiré, ça fait un an et demi, mmh. j'avais dit que j'étais contre. Et je suis aujourd'hui extrêmement contre cette loi d'amnistie. Ça n'a rien à voir avec une personne que vous me visez ou pour me visez. Pourquoi, le tard Parce que, quand même, mon collègue, combien de familles ont été victimes de ce qui s'est passé entre et ban tort la ñu subirul le président Ousmane Sonko qui est aujourd'hui arrêté ban tort la subirul les Diomaye qui est candidat ban tort la subirul il y personne entre ñoom ak man mi kuy wax on veut une loi d'amnistie parce que jàmm day lalu ci dëgg jàmm day lalu ci justice il n'est pas dit que c'est responsable bul yoon defoon liggéeyam ba identifier leen dañuy nekk naan dañuy fayante du leen sonal bu ñu ñëwee au pouvoir non mais pour pacifier y a d'autres mbir mën na am enquête am justice def liggéeyam ba mbir yi feeñ ba ñu xam kan la ba justice teg li muy teg président peut gracier mais au moins la lumière est faite sur certaines choses yi nga xam ni cib réew mënuñ ci gëm rek ni na dem mais loolu président bi ñëw suba bu fekkee xam na ni quel que soit alpha il a la possibilité xool buy waaj dem nan lay defee nu ko neexee nga foog ni président boobu dina des ci dëkk dina des ci justice dafa am ñi xam ni boo ko ubbee day doon des précédents extrêmement dangereux mm-hmm. et ku nekk suba daa ko mën utiliser te bu boobaa doo mën a téye loxoom moo tax boo nekkee ci dëgg bul ci ñeme bul ci ragal a wéet boo nekkee di défendre ay principe ak ay conviction bul ci ragal a wéet question bi bi ñu ci interrogé il y a un an et demi que ce soit man que ce soit le président Ousmane Sonko que ce soit tous les opposants on a dit non et aujourd'hui encore on dit non en tout cas moi en ce qui me concerne Déthié Fall le candidat de la coalition Déthié Fall 2024 j'ai dit non Ça ne veut pas pour autant dire que je ne suis pas pour la paix. Mmh. Je ne suis pas pour la réconciliation. Je suis pour la paix et pour la réconciliation. Mais je suis aussi pour le fonctionnement de la justice. Pour que la lumière soit faite sur li nga xam ni am na fi. Mhm. coupable yi ñu xam ñan la responsable yi ñu xam ñan la buñ ko identifier ba pare bu yàlla defee ñu fal ma mais j'ai d'autres instruments par la grâce et autres mais au moins ki nga xam ni tey. il a été victime de ça mu gis ni réewum am na yoon. Hmm. parce que ñun li ñuy wax moo tax il faut jamais que ñuy rapporter les choses entre nous moi je l'évite je veux devenir président de la République j'essaie toujours à travers les actes les positions de me mettre au-dessus de ne pas ramener les choses entre nous politiques parce que effectivement ñun ñooy nekk ci terrain bi di opposé wu mais li ñuy def fekkee gëm nañ ko du pour ñun ah c'est pour le peuple sénégalais et 18 millions la ñoo ngi ci biir réew ak au niveau de la diaspora mm. dinu xool di war naw suñuy acte di ko war ndamoo ku nekk fa nga ne et loolu mënul wéy tant acte booy posé élevé woo fàtte sa bopp tant que acte booy posé tegoo ko ci justice mm. mais président et le président précision de la république par rapport ak euh, loi d'amnistie bi mm-hmm. euh, bu dul Ousmane Sonko Euh, euh, Bassirou Bassirou Diomaye Faye pourrait en profiter et Ousmane Sonko dans une certaine mesure oui. même si c'est pas pour cette raison-là que le inéligible oui, pour non, certain temps mais loolu grâce mën na ko régler et le président n'exclut pas toute mesure y compris la grâce je, je suis sûr euh, d'une bi mm -hmm. le président Macky pour président Ousmane Sonko defu ko pour président Diomaye defu ko pour kenn ci opposition lan moo tax ñu def non mais on connaît le président de la République Macky Sall quand même vraiment on parle d'un grand politicien mm-hmm. à jours de son départ pourquoi muy précipité pour am une loi d'amnistie mm-hmm. pourquoi mais na bàyyi le prochain président ñëw toppatoo ko. lu tax lu tax pour yow. vous pensez qu'il l'a fait pour lui-même. mais il bien sûr qu'il le mm. fait pour lui-même. Mm. c'est évident mais quand même vous êtes trop intelligent je vous respecte je vous connais. vous savez autant que moi que lii muy def yëpp pour kenn ku dul pour moom. Hmm. parce que 40 jours am yi ci ka dese lay réglé. moo tax démb bi ma defee point de presse ma ni que comprendre na la tax a jóg demal mag nanu di la topp. Hmm. mag nanu di la topp demal. et la reddition des comptes c'est un exercice primaire et élémentaire en gestion il faut mu am ci réew. Hmm. tekkiwul da nga koy def pour après mu doon un instrument mm. pour contraindre des personnes à se mettre à carreau ou à vous rejoindre mais dafa doon lu jaadu ci képp kuy ñëw bees xam li ngay teg sa tànk fan la te errement yi mu nekk di def nii mais dafa am ay enjeu yu mag ci suñu économie mais vous savez qu'au mois de juin am na ay revue avec yenn institution financières yi ay plus de mille milliards ñoo nekk en jeu et xam ngeen institutions comment elle fonctionnent. Mhm. vous pensez que même si yooyu dañ ci war sukkandiku ci budget bi vous pensez que avec instabilité bi am nii que le président créé du porter préjudice aux Sénégalais sur ces questions-là. Ah, si, si. les entreprises les industries les investisseurs étrangers. Mmh. mais ñooñu fépp fu ñuy dem comme réew. le premier critère bi tax ñu def seen investissement mais c'est la stabilité, la stabilité. Tout à sécurité est-ce que vous vous imaginez un peu le président Macky Sall donc ci fi nu yóbbu ak risque yi mu nekk di yóbbu Sénégal ci au-delà même de son image en termes de démocratie ci économie am ci ëllëgëm ci aussi confiance yi bailleurs yi war am par rapport ak Sénégal. Mhm. foofu dafa am ñu ma ciy waxal ñu bare. Mhm. alors pour dire que le président Macky Sall je l'ai dit hier. Mhm. dernier acte yi mu posé yëpp c'est des actes qui ont divisé. il a choisi un candidat dans son camp il a divisé son camp. il a pris un acte le 3 avril buy suspendre la présidentielle à 10 heures. du début de la campagne. pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, il a mis en opposition trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif contre le pouvoir législatif, contre le pouvoir judiciaire. Mhm. Décision Bob. Pour la première fois, le pouvoir judiciaire n'est en opposition contre le pouvoir exécutif. pouvoir judiciaire n'est en opposition contre le pouvoir exécutif. Et aujourd'hui, il nous demande, à travers son dialogue, mhm. l'amnistie pour lui d'être en opposition entre opposants ñoo mag loolu mm-hmm. ñoo mag vraiment loolu mm-hmm. ce qui est de lui wax nañ ko dañ ko jox réew ci njëkk jox ko ko cib dal jox ko ko ci stabilité en 2012 il a le devoir l'obligation bàyyi ñu réew boobu en 2024 cib dal ci stabilité parce que liñ ko jox moomu ko liñ ko jox santul sàll liñ ko jox ñëpp ko moom te hmm. allah kulli ali da ko fi bàyyi ñeneen dem hmm. donc opposition bi doy na xool ay astuce politicienne jeex na li fi des mooy conformer wu à la constitution renvoyer ramener l'image du Sénégal de sa démocratie ci fi mu nekkoon. bu ko defee bàyyi chaque pouvoir jouer son rôle mu dem loolu rek lañ koy laaj. Mhm. mais euh, pas aujourd'hui encore une fois di prendre la démocratie en otage et de lui mhm. demander en rançon. une une une loi d'amnistie ça n'a aucun sens. Mhm. merci beaucoup. voilà euh, Alioune ci sa kàddu bu mujj nan nga yaakaaree ni. Euh, mën nañu euh, génn ci crise bi nga xamante ni comme ni ko président di ci waxee chaque euh, pas dafa mel ni dañ ciy gën a xuus ci biir crise bi. waaw xam nga lii waral lii yëpp mooy ñi war toog waxtaan waxtaanam